lillaahi rabbil aalamiin wa sallallaahu wa sallama wa baaraka alaa nabiyyinaa Muhammad wa aalihi wa sahbihi ajma'iin ixwatal iimaan mbokku julliti daarul birri wal irshaad ci turu seen mbokk Oustaz Oumar Ahmad Sall ma di nuyu ginnaaw bu ñu santee borom bi subhanahu wa ta'ala di gërëm borom bi di ko bakk di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko ñaanal jàmm moom ak i sahabaam ak taabiciina lahu bi ihsaanin ila yawmi diin xanaa di waxati rek rabbi an'amta fazid baat bi ñu bari yàgg nañ ñu ko déggee mooy yàlla day defal nga nu xéewal noo ngi ñaan nga yokk noo ngi sant borom bi te jaam mënul lu dul sant yàlla borom bi ne la in shakartum la azidannakum su ngeen santee ma dollil leen waaye ñoo ngi sujootal borom bi ci sujootu toroxlu ak nangu bépp dogal bu mu teg ci ñun waaye muñ bépp nattu bu mu teg ci ñun nuy ñaan borom bi saxal suñuy tànk saxal seeni tànk tey nag dama ñëwoon di sant mbokk yi ndax man lam yashkuri naasa lam yashkurillah ku santul nit ñi la taxawu taxawle la kon sag cant yàlla day def lan laa bëgg a wax mooy nattu bii ñu yàlla tegoon te nga xam ni mbégte rekk lañu jural ak victoire ak it am ci lu bare bari dafa feeñal lu bari nu koy sante yàlla ginnaaw bi ñu xamee ni ñu bari ci nitu diine yi lii ñu daloon dal na leen na nu ko gisee woon it mooy sant yàlla moo tax ma sant yàlla bu baax bi ñu jàppee te dara taxul ñu jàppuñu lu dul diine mënoon nañ ñoo jàpp ci leneen su boobaa lay doon gàcce bu ñu jàppoon ci drogue walla ci jigéen walla ci alalu jàmbur su boobaa mën naa doon gàcce dangay sëgg waaye ba ma génnee ba léegi dama siggi fu ma romb ñépp di ñaan kon maa ngi sant yàlla waaye di ñaanal ñooñu remerciement rek laa bëgg a def te remerciement boobu xëy na du ñàkk moos danaa distinguer ay tur tudd leen waaye ñépp laa boole gërëm di jiital ci cant googee muy ducaati ahlu sunna wal jamaa wa ala ra'sihim a cheikh docteur Mouhammad Ahmad Lo nga xamante ni taxaw na taxawaay bu rafet di taxawaayu kilifa di taxawaayu soppe di taxawaayu mbokk li ñu boole dafa bari du lu ñuy mën a wax ci ay kamera walla ay son nit ñi di ko jël waaye loolu moom xam na ko man xam naa ko te ala kulli haal ñu ngi ñaan yàlla alaaka boobu yàlla teel ñu ko boppam ginnaaw boobu ñu ngi sant Omar Diallo Oustaz Omar Diallo moom su ma genn wàll la wallaahi dafa am lu ñu yàlla boole moomit lu bari cofeel gu dox sama digganteeg moom ku nekk gis na Umar Diallo ni mu sonnee ci mbir yi lool ci biir ci biti ci dox ci wax ci lijjante ay avocat ci taxaw man daanaka dama wax ni man nekkuma woon kaso mais ñoom ñoo nekkoon ci coono ala kulli haal di sant suñu wóllëre suñu mbokk Cheikh Mor kebe gis nañu taxawaayam rafet na waaye ñoo ngi sant ak docteur Mourtada Gueye wallahi moom it ñu ngi koy sant di ko tegal sàpp lii lépp day wane ni li yonent bi wax rek masalul muminina fi tawaddihim wa tarahumihim wa taatufihim ka masalil jasadil wahid ida staka minhu udwun tadaa lahu saairu ljasad bilsahari walxuma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na misaalu jullit ñi gëm day dafa mel ni benn jëmm rek benn jëmm daal su benn cër mettee lépp metti su bëñ mettee yaram bi yëpp metti su nopp méttee kadaalika naka noonu kon day wane ni mbokkoo la goo xam ni noo ngi ñaan mbokkoo googu yàlla saxal ñu ko téel ñu ko ba ñu jadee fii firdawsil aala di yokk nag gën a gërëm di sant ku ñu ñëpp xamee di soppe di wóllëre di doomi ndey di doomi baay muy at docteur Sidi Yaxya Njaay moom it gëmmul nelawul noppalawul moog waa Petite Côte waa Mbuur mbokk yépp waa Ngeexoox ñépp taxaw moom mu taxaw ala kulli haal mu mel ni yëf yi dal sunu kaw ci seen kaw la dal waaye ñu ngi sant tamit a Cheikhul Walid nga xamante ni soppe la xarit la muy docteur Habibullahi si boroom daarul imaan ñu ngi koy sant di ko ñaanal di ñaan yàlla li ko yàlla jox yàlla na ko yàlla barkeel di ko ñaanal ñëpp waaye di sant nag beneen wóllëre woo xam ni moom it li ma wax ci ñee rek moo na ci ñoom muy oustaz Galadio Ka di amiiru xarakatul falaax moom it taxawaayam rafet na ci lépp lu mu mën ci alalam ci am-amam ci xam-xamam ci léppam su weesoo loolu ci sabab yi ñu ngi sant daawa au senegal ndaw ñi mobiliser nañ lépp ñépp mel ni dañoo feebar taxaw ci taxawaay mbokki kastoor it kadalik naka noonu ñoom ñépp taxaw nañ waaye nag xam ngeen ni mënuma ñàkk sant moos activiste yi ñi nekkoon ci internet bi ci jottali ci leeral ci génne ay vidéo ci wane position yi ci wane la nga xamante ni nëbb woon na te ñu ko doon nëbb secret yu bari yañ doon nëbb yàlla dogal ñu feeñal ko ba nit ñu bari xamee ca lu bari waaye ba nit ñu bari jaaree ca ba gindeeku di sant suñu rakk sunu soppee alfaba yàlla yàlla dëgëral ko wallahi alfa nu ngi koy ñaanal bu baax a baax wane na ni mbokk dëgg la te taxaw na taxawaayu mbokk waaye teg ku ci njub tegu ko rek ci mbokk waaye da koo teg ci xam-xam teg ku ci njub Ousmane Cissé itali mbokk waa Italie ñépp Moustapha Cissé Habib Thioy ñii laa ni woon su ma leen tuddee ñi ma tuddul danañ jàpp ni tudd naa leen ndax ahlu sunna wal benn lañ kon mbokk yi wallahi maa ngi gërëm ñépp di ñaanal ñépp di beral nag gërëm ak sant ak ñaan soxna yi soxna yi moom daanaka mën nga ni ñoom ñoo jël coupe bi lan moo tax ñoom ñooy toog ñu mën a xàmme ahlu na mën a xàmme ibaadu yi su doon ay góor yi kese kese ñoo ñëwoon ci tribunal bi ña ñu séqaloon du ñu xàmme ma demba du ñu xàmme ma sàmba waaye jigéen ñi yàlla da leen defal mise boo xam ni fu ñu toog wala ñu taxaw rek danañ leen xàmme te li ma ci gën a yéem mooy ay ndaw ay xale ñii di jooyoo ñii di xuloo ci seen kër yi ñii di jote ñii daanaka munoo munuma wax leen rawatina nag ci biir jigéen ñi ma am ñu ma ci tudd ñi ma tuddul ñu xam ne tudd naa leen waaye association Mour Say Cër ñoom yal na yàlla fay leen jazahumullahu xayran ka nekk ci seen bopp di isma mbooleem ña mu bokkal ca góor ñaak jigéen ña gis nañu seen taxawaay ñu ngi leen di ñaanal yàlla waa voilez-vous ñoom it noonu résion yi kenn desul amul benn région lu dul am na ñu fa jóge ñu ñëw taxaw ñii di ñaan ñii di naafila ñii di tudd yàlla kenn ku nekk ñaan ba nga xamoon yaa ngi ko doon ñaan ndax lii su fekkoon ni tey ña defoon lii lañu bëgg am nañ ko su boobaa dana jur beneen polémique waaye yàlla lu rafet rek lay defar ñu ngi koy sant bu baax waaye nag di sant suma doom suma doomu bopp muy Fatima Diallo mu sonnoon lool ak ñeneen ñu mel ni moom nga xamante ni ca kaso ba lekk naan dara mànkewul mbokki commerçant yi waa lalu wurus ñoom Ahmad Dia ak ñi mel ni ñoom ak ñi ne Sandaga fur wi mànkewul lekk mànkewul naan mànkewul ba ñun ñuy rabitaaye ñeneen ala kulli xaal ñooñu il faut ma sant leen kon ñu ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp waaye nag di sant administration pénitentiaire nga xam ni foofu laa nekkoon ci ñoom ñu defal ma bépp opportunité ubbil ma ko te seen bopp ka ca nekk di directeur ba nekk ku baax chef de courit ñu ngi koy sant di ko ñaanal di ñaanal ñi nekk ci prison bi ñépp waaye rawatina chef Baye Daaru kooko yàlla dafa dogal ma xaritoog moom ci biir prison bi wax dëgg yàlla muy xale bu baax ñoom ñépp daal noo ngi leen di ñaanal mbokk yenu fa fekk ak ñañu fa bàyyi ñu ngi leen di defal ñaan bu baax bàyyiwuñu kenn kenn kenn kenn bokk na ci ñi ñu nga xamante ni dinaa leen tudd su ma ñëwee ci biir avocat yi muy sama waa kër nga xamante ni ñooy waa kër a Cheikh Alioune Badara Ndao rahimahullah wallahi sama njaboot lañ sunu njaboot lañ kana ci seen bopp di Abdallah Ndaw ak ñoom Moustapha ñoom ñëpp gis nañu seen taxawaay taxaw nañu ba indil ñu seen mbokk muy maître Moussa Sarr mu ñëw taxaw taxawaay bu rafet kon ñoom ñu ngi leen di sant ñoom it waaye nag di jiital ci sant bi nga xam ne maa ngi koy sant mbooleem avocat yi maa ngi ciy jiital maître Babacar njaay taxaw na taxawaay bu rafet maître Tall ñëpp xàmme nañ ko mu mel ni dafa distingué ci biir avocat yi te fekk ñoom ñëpp ñoom ñooy liggéeye noonu maître Bidjeli ñu ngi koy sant bu baax a baax te sunu mag indil ñu ko muy Pape a sekk bugguma sax di tudd turam ndax man moom dañoo dépassé santante maître Moussa Sarr sant nañ ko maître Famara Fati ñoom ñëpp nag ñi constitué woon ñëw jàppale ñu ñu ngi leen di ñaanal amul kenn ci ñii ku laaj benn dërëm dëgg rek moo leen yëkkati woon ak def droit ak àtte droit ñu ngi gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaan yàlla subhanahu wa taala sunna ci kaw bidaa ci suuf incha allah daawa bi day continuer fa mu nekkoon lay nekk incha allah nanu ko doon defee lanu koy defee ndax it nag tooñu ñu woon kenn dañoo waxoon te yàlla tax te wax jooju incha allah dafay continuer bu soobee yàlla ndax kalimatullahi hiya al baatu yàlla bi kaw la jëm te incha allah danañ ci def luñ ci mën suñu fi jógee ñeneen ñëw daal di koy mottali alhamdulillah ñu ngi sant yàlla bu ñu amoon ñaan boo xam ni suñu ko ñaanee mu gaaw nangu ñii ma tudd ñëpp dañ leen di ñaanal waaye li muy wane rek ne mooy ñëpp dañoo bëgg sunna jëm ca kanam sunna jëm ca kaw feek sunnaa ngi jëm ca kanam diine ji jàmm lay am nit ñi jàmm la ñu am feek ñu ngi sàgganee sunna fitna dañuy dal yàlla nañu yàlla musal ci fitna incha allah ñu ngi ñaanal mbokk yi yëpp ñi ñu tuddul ñu bàyyi xel ni mënuñoo tudd ñëpp waaye ñëpp gis nañ leen ñëpp sama famille sama njaboot jàngalekat yi ñi bokk ak man waa daaru cubbu ñi dëkk ak man ñii ñëw di faju ñëpp benn kàddu la ñëpp benn kàddu la wallaay non Abu Jamil moom nga xamante ni ñoom moom Abu Jamil moom yëpp keemaan la kemaan la ñoom waa atas ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax ala kulli xaal daal ñu ngi ñaanal ñëpp di ñaanal ñëpp ki ñu tuddul jàppal ni tudd nañ la euh, suñu kóllëre boo xamante ni fu ma nekk dañ koy xam muy Thierno Gueye Ndiaye ala kulli haal gis nga ko su ma ko toppee nii du jeex mais ñëpp dañoo taxaw taxawaay bu rafet jazahumullahu xayran ñu ngi leen di wax ni ca kaw ca kanam sunna ca kaw rek incha allah bidaa ci suuf rek incha allah kàddu yàlla bi idnillah feeg ñu ngi dund dina jëm kaw bu soobee yàlla sant yàlla bu baax di ñaanal ñëpp di ñaanal waa daarul birr asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.